bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes, chers téléspectateurs. De nouveau Parlons Jeunes au Parc de De nouveau Parlons Jeunes avec d'autres invités pour aussi discuter d'un autre thème qui intéresse la jeunesse sénégalaise. Donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez pour cette émission-là. Mais je vous rappelle, concept bi la philosophie du moy waxtaan wax daje donc fii xuloo amu fi confrontation amu fi leneen amu fi dañuy dajale ay ndaw ñu waxtaanee lépp lu leen intéressé gannaaw buñ ko waxtaanee ba pare ñu xool la ca gën yen euh, ñi nga xamante nag yéenay seetaan yéenay jël li leen intéressé waaye itam ndaw yi nga xamante ni xëy na ñoom ñooy seetaan ñoom ñooy xool. ndaw yi leen fi toogal pour waxtaanee xëy na la leen intéressé wala pour waxtaanee xëy na la nga xamante ni xëy na comprendre duñ ko donc yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan yéen am setantelu seen bopp chers téléspectateurs tey jii ñu dajale fii ay nit ya nga xamante ni wala ay jeunes yi nga xamante ni daanaka dañu ñëw au Sénégal wala seen avènement bu muy ñëw au Sénégal def na beaucoup de bruit ñu leen di woowe ay yàlla yàlla fan la terme boobu jóge lan moo tax ñu leen di woowe yàlla yàlla lan moo tax itam ay ndaw topp ay nit ya nga xamante ni daanaka lañ leen di gëmloo wala langa nga xamante ni xëy na moom yoon yeneen di toppal ñu bari comprendre ñu donc loolu moo tax tey jii ñu dalal leen fii ngir waxtaanee xëy na philosophie wala concept wala euh, yàlla yàlla yàlla yàlla lan lay teg itam ban yoon la daanaka def na fi ay bruit yu bare bare bare bare bare ñii jàpp ni ay ñaseen lañu ñii jàpp ni ay tijaan lañu ñii itam jàpp ni xëy na la ñuy nekkee sax du dëgg waaye itam mbokki ñu jàpp ni pour concept émission Parlons Jeunes, pour combattre le mal, il faut montrer le bien. Lolo, ñu gëm ni Sénégal non la mës doxalé ci bir ay ndawam non la mës doxalé ci bir société am ñi nga xamante ni nag tey nañ leen fi ñu nek ay jeunes nek ci bir courel bobu duma d'accord ni xéena ñom ñoy représenter courel gi yépp wayé gëm nañu ni bu ñu waxee xëy ñu bari nañ mëna gindéku wala yeen itam yéen am sen appréciation personnelle pour mëna juger wayé gëm nañ ñu en tout cas waxtaan bi fi joggé dina mëna satisfaire ñi nga xamante ni xëy na ñuy euh, seetaan ngir waxtaanee donc yalla donc yàlla yalla yalla la muy tekki la mu doon la tax mu ñew senegal fa ñu jokk mbir ma problème yi ci juddu ndax itam ça a été très mal présenté au Sénégal d'après appréciation biñ ci am waye itam lolu yépp dina lèr ci bir waxtaan bi. l'islam de l'islam rek la lu doon gan amu ci l'islam lu doon gan amu ci luñ ci mëna dolit amu ci li yonti bi doon alayhi salaatu jaar ci ak sahabaam loolu rek la ku ca dolli leneen lu ca bokkut sallallahu alayhi wax na ko man ahdasa fi amrina haasa maa laysa minhu fa huwa raddun yooyu tamit neen ci mbir mi ku ca dolli ca bokkut ñu delloo la ko njub ak lislaam ci yonent lañ koy royee kon lépp lu wuteeg diina lislaam wuteeg lu ci bi waxoon wuteeg lu yonent bi daan jëf soo ko tuddee lislaam bokk ci lislaam su ko defee nag xat naa bindoo noonu soo duggee ci julli yi ne gëm nañ yàlla da nga ci fekk jullit boo xam ne wóor na nam mel yonent bi diglawu ko melu ko saabay mel diglawu ko itam te jullit lay tuddoo nag te doo ko mën di génne ci jullit ci biir murid yi dañ ci fekk kuy sëñ Tuubaa na mel sëñ Tuubaa gërëmut ko te doo ko mën a génne ci murit nag ndax sëñ Tuubaa la tuddee soo demee ci biir tiyaan yi da ci fekk koo xam ne na mel sax tijaan gërëmut ko te tijaan lay tuddee boppam kër goo mën a dem rek xam ne koo xam ne duñ ko ca wone waaye am na ñu ñu wone nag ñépp dañu mënta même waaye nag waxtu boo xamantaan ne ñii ñu bon lañ ñii ñu bon lañ xam nañu baax it nag kon am ñu baax ba tegu fi yàlla gërëm waaye am na ñoo xam ne fañ jaar yàlla gërëma ko loolu moom kër goo dem fekk ko ca. ni mu amee ci kër gii nii la amee ci kër gu mënti doon waaye ka doon defar di woote moom baax ko taxoon jóg ak baaxal nit ñi tey loolu moom la noonu te loolu du dund ku ca dund leneen nag des na ci ndax nit ku ne ak sa jëf man amila saalihan fa li nafsi jëf ju baaxee yow la ñeel su jëf jaaxu yow la wala tasiru waasiratan wisra uxra samboon gi lu mu rëy rëy rëy xakkata ci yow lay yam sëriñ moom njub la tàllal njub la woote njub la dund njub la digle ku ca topp nag fa leelam du ku topp leneen nag ngir sa bakkan nag ah yow yaa wàcc yoon wa rek moo tax te Moussa waxoon ne xam le yàlla ak jaamu yàlla nu wale lu ci waaye ne te du jaamu yàlla yaa ci naal sa bopp waaye man newuma ci xam nga lislaam duñ tàggale doom ak wayjur nekku ca tàggale doom ak wayjur nekku ca waaye nag leen léeg it wayjur juum léeg-léeg doom juum lu mat a xàmmee la gis nga yàlla daf na jaamu leen mata bu leen bokkale kenn waaye rafetal leen jëm ñaar wayjur wax bu doon laaxa wala tusi ko bii say an wa bil walidain ihsanan kon yàlla rek la ñuy jaamu te duñ ko bokkale kenn du ndey du bàyyi kenn bokku ca waaye dañuy rafetal jëm ci ndey ak bàyyi su ko defee nag mbiru tarixa nag lu mel noonu yombati ci am lool ku teg sa wajur am na ko xam ne murit la gëm doom jum jur mu doon taxaw beneen yoon bu du murit mën naa dogoog moom ci loola. am na ko xam ne tijaan gëm doom jum jur mu dem ci yoonu murit mën naa dogoog moom ci loola loolu nag du xel. du xel nit dafa war a jëfandikoo xelam bu baax parce que ki nga jur ndax damay wax toujours ne sëriñ ñett rek la benn sëriñ mooy sa way jur gannaaw bu mu la juree yar la dundal la ba nga xëy matat yaa ngi sëriñam doy na foofu la yem mu jël la seet sëriñ boo xam ne yaram ak alxuraanam doy na ko mu yóbbu la ca sëñ boobu leen yar la ci diina jàngal sa diina ba nga xam sa diina nga ñibbi ci kër gi léegi mag nga xam nga lu baax xam nga lu xam nga ki lay xam ki lay jëriñ foofu nag waroon lee bàyyi ak sa xel ak sa sago nga seet sëriñ bala doy nga tànn ndax mbiru sëriñ mbiru ngëm la ci xol te doone kii ma gëm la ngay gëm forcé déedéet la ikraha fi diini qad tabayyana rushdu minal ghayyi faman yakfur bi taaquut wa yu'min billaahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqaa diina amul forcé kon doone ki ma gëm forcé nga gëm ko ki ma topp forcé nga topp ko mag la am na xel mi nga am kon bàyyi ko mu tànnal boppam te it damay faral di wax ne yow mi nga xam ne yaa ko ci jur moo xam tariixa bi la moo xam sëriñ bi nga àndal la mu judd ci màgg ci ba xàmmee lépp ñeexut la yow ndax gisul benn dooleeku bu dooleeku ci yow nga bëgg koo ci yoon woowu leen te moom ñeexut la bukk ci dugal dem xol ba dugg du ci dugg su boobaa nag lu xolam tànn te xolam bëgg ko nag mu dem te nag mën na am uteeg moom waaye danga nga amoon ron xam na bàyyi ko mu tànn moom itam ba xam ndax tànn nga yow li la bàyyi ko mu tànn su ngeen tànnee ba mu yàgg na ngeen ne ba ca kanam kan moo ci ñee moromam gis nga way te for di soog doom damay faral wax toujours ne ñu bëree ngi dañ ne kër gi maa fi am baat maa war a wax dëgg la yaa war a wax de waaye nga yëg ne xel mi nga am la ñëpp am kon xam na loo xam ne bu ñu ci àggee diisoo rek kenn kon da ko war laaj xelam ak xelaatam nga génne sa xel ak sa xelaat su ko defee seet bi ci gën a jub ñu doxal ko xel mu rafet du ne rek kilifaa ko moom du ne mag a ko moom mag mën na ko am gune mën na ko am kon lu laaj mooy waxtaan kon mbiru sëriñ sa lool yàgg na ci am wayante du xam-xam du lu doom ak baay du leen tàggale déedéet. tey damay faral di suuf ne taalibe yi. ku jog ne maa ngi wuti lu baax bàyyi day bàyyi bàyyi wuti lu baax dem ba lëngu ut nga am ko dellusiwaat ci kër gi yar bañ la xamee woon ak teg gi nga xam ne wàññeeku kon fa ma dem jëlee naa fa lu baax duñ ko nangu dañ naan danga faa yàqu kon ku jog ne maa ngi sakku ci mbaax dem ba wax ne am nga mbaax gi del si kër gi war ñu gis ndollal loo xam ne ba ngay dem yóbbaale wul ci mbaax ak teer ak loolu kat ku ko yor koo jubóo tey day xam ne bëgg lu baax ndax nit ki bu fekkee mënoo ko tuumaal dara li nga gëm la gëm yaa ngi julli muy julli yaa ngi war mu lu baax lu ne yaa ngi ko cay gis leneen loo ko tumal rek xëy na ak kañaan la wala ak la xanaa waaye mënoo ko tumal dara soo de loolu mën na bàyyi xel baax nit ko xam ne gisoo ko wàcc saraat wàcc sunna xanaa gis naa yàlla wala xam naa yàlla rek nga ko tumaale bu dee loolu rekk la tumaal yooyu moom xàq saa ju baax la ndax yàlla kat ku ko gisut xamuloo ko mënoo ko jàmm yàlla du ko ñëw joxe naan la yàlla nga nele ab jullit bu gisul yàlla lu muy gis boo koy gis yàlla mi la bind moom la ne la jaaw mënoo ko gis ci dara te lu ne ne yàlla laa koy defal te mënoo caa gis yàlla ndax jëf ji kon dana baax kon dafa daganoon lépp looy def nga gis te yàlla ba doo ko ca bokkale kenn doo lay gis yàlla lépp looy def nga gis ci yàlla doo ci gis sa bopp doo ci gis keneen su boobaa doo ca bokkaal yàlla kenn waaye lépp loo def gisuloo ci yàlla gis ko ca dara ca la ci gis du yàlla bokkaal jëm na waaw lépp loo def ci gisoo ci yàlla koo ci gis ka nga gis ndax dara la ci jëf ja du dara kon gisal yàlla ci lépp lu man di doon te jëf seel baax gisuloo yàlla nag leneen ngay gis leneen gisuloo ijaab la nag bu jaar si leen sa borom te yàlla waxoon ne kala innahum an si la islamax jooboon su ma inum la saalu jahim yàlla comme xiiru rek daf la nam ma buggal kiiraay yàlla comme jaar kiiraay sa dente moom daf laa nam ma buggal comme nam ma tereel xëllëg indi say jàpp nga jonoog moom dañ koy gis sañ koy xam ñu dajale fii Seydina Sène donc Seydina Sène nekk jëwriñ ci biir kuréel bi Seydina na nga def. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar bu baax di am mbégte di teew ci jotaay bi ak sunuy mbokki taalibe ngir waxtaanee li nga xam ne la ñuy dund te ñu bëri réere ko kon ñu ngi nuyu di wa rahmatullah di wa rahmatullah ñi nga ñu ngi te dañuy déglu d'accord donc soxna Mati euh, na nga def ah, ñoo ngi sant ñu ngi ziar bu wér di am mbégte teew di nuyu ñi ñu dalal di nuyu aussi itam ñi nga xamante ñoo ñuy di wax ne am nañ mbikté lol pour teew fi euh, ndax euh, suñu léral tay ji tay mën nañ yaakar ne njëriñ la ci askan wi di len ziar bu wér. Euh, jërëjëf soxna Mati Mansour seigne Mansour. waaw Mansour. kon assalamu alaykum Babacar waaw Guèye ko balla nga wal nga wala. déedéet déedéet d'accord bi beneen Guèye bo ci boobu kon ñu ngi lay nuyu bu baax Babacar di la di la di la di bu baax. di nuyu mboolem téléspectateurs yi di rafetlu émission bi bu baax xam na solo look waxtaan moom am na solo waaye tamit waxtaan ci loo xam ni ñu bëri xëy na réeré nañ ko ngir mu gën a leer loolu gën na am solo moo tax kon ñu ngeen leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi tey kontaan bu baax ci daje bi. Euh, jërëjëf euh, sëñ Jibi Sey di fàttali ni Jibi Sey daanaka xam naa ko bu yàgg hmm? donc ba ma xa ba mu ko xamee itam xëy na. Euh, loolu moo tax xëy na bokk na ci loolu émission bi xëy na am di nuyu itam cuun moom mi nga xam ne xëy na daanaka waral na lii yëpp waa waaw sëñ Babacar maa ngi lay ziar bu baax. Mhm. di ziar mboolem yi jàkkaarloo ñun di seetaan LCS. Mhm. di la féliciter parce que xëy na comme ni nga ko waxee yàgg nañ xamee te depuis loolu ñu ngi gis euh, sa dox ci média beeg yu mel noonu ñu lay ñaanal suñu borom jëmale ko kanam. di ñaan it émission bi nga xam ne moom nga ñu invité te muy leeral lu lu am solo. Mhm. parce que terme la boo xam ne yegg na fu bëree bari te ni nga ko concevoir ak ni mu doonee dara bokk ci. donc boo ñu dalalee may ñu tribune boo xam ne dina ci mën a leeral suñu kéemtalaay kàttan dañ la ciy sant bu baax tey ñaan suñu borom jubal suñu làmmiñ ba lépp luñ fi wax rek mu dëppoog ni mu ko gërëmee daal. Mm-hmm. kon ñu ngi lay ziar bu baax a baax. di la félicité euh, Moussa ak Harouna. <laughs> Ah. <laughs> bu ñuy ñëwaat ci débat bi di wa di ni en tout cas yàlla yàlla boo koy dégg lu ci bari ngi reposé ci côté soufisme côté spiritualité. donc loolu moo tax on a préféré ci plateau bi en tout cas ñoom rek ñu koy dund ñoom ñoo fiy teew. wax ko xëy na yéen ñi nga xamante ni itam yéenay seetaan ñu jàpp ni xëy na war ngeen ci mën a gindeeku d'après ñoom li ñu kii léegi dama bëggoon la première question que j'ai à vous mooy fan la yàlla yàlla ju le terme d'abord le terme fan la jóge waaw Seydina. waaw terme bi mooy baatu yàlla yàlla. mu ngi juddoo ci li siiw dañ xam ko 1991. Mhm. ci xel kom la juddoo ci ay toolu sëñ Saliou yu mu woote woon. Mhm. naaw nag Cheikh Moussa dafa bokkoon ci ñi nga xam ni lu mel noonu saay bu taxawaan mu am ca ndigal ñu bind ko lettre woolu ko mu daal di jóg ak ay taalibeem daal di ñëw xel comme liggéey si buñ liggéeyaan ba noppi nag ñoom dañuy def seen diwaan di tudd yàlla laa ilaha illallah comme niñ ko xamee buñ noppee di waxtaan ci yàlla kuñ dajalit waxtaan ak yow ci yàlla waxtaan bi yàlla nag dem ba bari dem ba bari nag te nit ñi léeg liggéey ba ñuy sonn ak yu mel noonu su ko defee nag ñu naan ñee daal boo demee yàlla rek yàlla rek ñu naan leen yàlla yàlla yàlla foofu loolu ban année loolu 1991 1991 la ca la am waaw mhm. Mhm. Euh, man naka jekk ba fii ma lay wax nii yàggul rek sëñ Abdou Akim mi nga xam ne doomu sëñ Basiru la mhm. tool yam am ci ginnaaw Kaffrine Touba Medina mhm. saay bu ñu koy liggéey Cheikh bi day jot mhm. ko su ko mu jox ndigal taalibe képp ku taalibe Cheikh Moussa nga jóg dem ci liggéey bi loolu ñun dem nañ ci soxna Mat que ñu bari xëy na foog nañ ni eh, yàlla ay murit eh, ay ñaseen lañu moo tax ñu leen di bind ay lettres yu jóge Touba waaw loolu loolu sëñ bi day confirmer que si famille bi lañ bokk parce que bu fekkoon ne du ñu ay murit kon lettre du jugee ci sang bu boo xam ne tey jii murit la soxla ñu pour ñu jàpp ci liggéeyam tey jii euh, liy confirmer que ni tey jii murit lañu mooy ne sunu sang ñun Cheikh Moussa Cissé mi nga xamante ne mooy ñàmbe borom daaru Cheikh Moussa boobu baayam Mamour Khouredia Cissé lañ koy woowee kooku bokk na ci 666 cheikh yi Serigne Touba cheikhal. kon 666 ma foog ni 113 la. ah si bind de. si uh-huh. bind. 666 uh-huh. lañ fa fekk. d' accord si bind. li mun a confirmer ne daal gis nañ ko ci bind. Uh-huh. waaw moom ci la bokk maam Mor Khuraja Cissé lañ koy wax. Serigne Touba moo ko seexal jox ko ndigal mu sanc daaru. daaru googu la Cheikh Moussa woote. daaru fan la ne. Ah, daaru mu ngi nekk Saloum. à onze kilomètres de Passy. d'accord. Mhm. Mhm. fa la nekk tey jii Cheikh Moussa Cissé boobu waajuram mooy Mamour Khouradia Cissé. Mhm. Mamour Khouradia Cissé boobu nag moom moo tarbiya Cheikh Moussa Cissé ba mu mat. am lu mu ca bëgg lu mu ca namm mu ne wóoluwu ca kenn ku du Serigne Touba mu yebal ko ci Serigne Touba ne ko nag lu mat a def def ca Serigne Touba dugg ak moom foo xam ne ñoom ñaar rek a xam mu def ci moom la muy def ci moom mu del si daaru toog ba woote jot mu woote te moom kolorante woon naag Serigne Saliou ba di ko bayal tool ba chaque année su ko bayalee tool ñun ñëpp dañuy def kuréel dem Touba ci xalif général bi jox ko njëgu tool bi. ba loolu amat moom nekkatu fi ñu koy def di ko def ba jamono yi doomam bi fi nekk tey moom la ñuy ñëw jox ko tool Touba bi mu ànd ak taalibe yi yóbbu ko ci xalif général képp ku fi représenté Serigne Touba. dañuy lu ci yow di la daggal tool di la ko bàyyal di la ko jox àddiya. Hmm, d' accord kan nga ni moom la Serigne Touba Cheikhal. Mamor Khourédia Cissé waajuru Cheikh Moussa Cissé euh, waaw euh, Mansour kooku bokkut ak njàmbe bi ñuy wax ni njàmbe njàmbe moom lu mu wax ak njàmbe seen njàmbe. Hmm, déedéet Mamor Khourédia Cissé. Hmm. mooy waajur bu góoru ki ñuy wax Cheikh Moussa Cheikh Moussa Cissé. ñun yoon wiñ ne xam-xam bi ñuy dund. dañ ci am ak kilifa am ci kilifa. ku xam te bu mat kilifa la xam te ni moo ko wootee kooku Cheikh Moussa Cissé la tudd mais boo demee côté Sénégal xam nga waa Saalum yi dañuy faral di wax ku tudd Moussa dañ lay faral di wooyu ñàmme looloo indi ñàmme bi ñàmme bu dëkk daaru loolu woo indi ñàmme daaru moom Cheikh Moussa Cissé la tudd Cheikh Moussa Cissé la tudd waa Saalum ñoom ci seen dàkkantal ñu koy wooyee njàmbe ak daanaka Sénégal yëpp sax boo xoolee dëkku kaw yi lu ci ëpp xëy na Moussa njàmbe lañ koy wax boo tuddee mbay am na xisaar dàqante lañuy dañuy def noonu rek waaye Cheikh Moussa Cissé la tudd mhm. Cheikh Moussa Cissé moom leen nag ku ñuy wax Mamour Khoroji Cissé mooy waajuram bu góor mooy baayam moom moo demoon jaayanteeg Serigne Touba moom moo séq ak Serigne Touba ay jéego yoo xam te ne Serigne Touba dem na ba defar ko ba seexal ko ba jox ko ndigalal woote ba ci daaru bi mu dëkk noonu Serigne Touba ci boppam moo ko tegtal Mamour ne boo demee bërëb sàngam defee ko nangam tegtal ko ci tegtalin yoo xam te ne am na sax riwaaya boo xam te ne que ça gudd na loolu mooy xëy du jaar ñu si jaaraat ba mam sëñ maam sëñ Mamour euh, Khoudia Cissé daal di sanc bërëb boobu. bërëb boobu leen di daaru moom la la yaamati wax sànq ne la moo nekk wetu Kaolack bu demee ba Passy 12 kilomètres ci biir Cheikh Moussa fa la fa la fa moom mooy dëkkam. moom mooy Njàmbe Daaru moom mooy moo tax ñu indi turu turu turu turu Njàmbe Daaru. d' accord alors léegi chers téléspectateurs donc je pense que lii xëy na le xaw na leer euh, ci euh, fa mu jóge kan mooy Cheikh Moussa te ñu koy woowee Njàmbe Daaru lii mais yéen ci ki ngeen jokk euh, ji bi ci ki ngeen jokk nu mu tudd kii seen kilifa léegi nu mu tudd. waaw suñu kilifa mu ngi tudd Cheikh Moussa Touré. Mhm. mooy suñu la te day am solo ñu leeral tuuti ci loolu. Mhm. mooy tey Cheikh Moussa tur bi yaatu na lool. wante yàlla def na 1994 ci la ko suñu borom jëlee ci saayir waaye ñum defaroon tey ba tey ñooy wéyal liggéey bi mooy ñoom la defaroon tàggat leen. boo nee ci saahir mooy génn na àdduna. waaw génn na àdduna foofu laa bëgg a waxee waxinu teggin la rek ngir warmaal kilifa daal. dëgg la waaw 1994 ci la génn àdduna. léegi nag ci ñim defar ñun ki ci suñu wasila mooy Cheikh Moussa Touré. te li ñu booleeg moom. mooy bëgg guñ bëgg suñu borom kan mooy Cheikh Moussa Touré. waaw ah, Cheikh mhm. nga xam ne moo ñu euh, branché ci maam Touré la sant ñu ngi mel ni nga ne ma lu tax maam Cheikh Fall sant Fall sëñ Tuubaa sant Mbàkke. waaw leen boole. xam nga am na daje ma mu demee lan la bokkoon ci moom. waaw li leen boole mooy Cheikh Moussa bi suñu borom defee lim def ci moom. te jaare ko ci Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul parce que waxal na ko boppam nee na aw ma benn wasila budul Bamba keneen lu mu wax nag ak ku njort leneen lam njort la rek wante ñun ñu ko wuy si te yàlla dimbali ñu ñu xam li Sëñ Tuubaa woote lan la parce que bu dee masaalik jàng nañ ko bu dee nax ju jàng nañ ko bu dee xoqa jàng nañ ko wasaayaay sëñ bi gëstu nañ ci lu bëree bari ba nga xam ne su fekkoon li mu woote wuute na ak Sëriñ Tuubaa lu tax tarfatal ay ni ñun ci suñ bopp dañ ko xamal bopp suñ bopp parce que Sëñ Tuubaa wax na ne jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa ba sama ginnaaw bi dara fii seen bët donc ku gëstu Sëñ Tuubaa xam fam tegoon tànkam ci mboote boo nekk su fekkee dëppoowul ak li sëñ bi di nekkoon rek yow ci sabab war nga koo mën a yëg parce que wax na jëf na bind na te yàlla dimbali nañu ba ñu fekk see Cheikh Moussa Touré mi nga xam ne Cheikh Moussa Cissé moo ko defar fi mu ñu teg ak fi ñu aw ñun suñu sant yàlla dafay dool ko te ku ñu xamoon démb ñu ñu jàkkaarloog télé bi xëy na mën nañ xam suñu démb ñun mais ku ñu xamoon démb ci li nekkoon suñu pas-pas ak lu ñu doon dox ak tey biñ dajeeg sëñ bi li mu def ci ñun ak fi ñuy dund ak fi ñu teg suñu dund tey ca mhm. fas yéene ko liggéeyal lislaam mhm. ñun dañuy sant yàlla bu wér-wér sëñ Moussa Touré lan la nekkoon ci euh, ci Njàmbe taalibeem la woon taalibeem bu ko joxoon léppam mhm. wëlbatiku di turandoom parce que way juróomu góor mhm. taalibe Cheikh Moussa Cissé la mhm. bi Cheikh Moussa Touré ñëwee mu tuddee ko ko wëlbatiku féetale ko ko donc taalibe nag bu fekkee am na sëriñ te nangul ko mooy xel see doon sëriñ ba. parce que man dama dégg ni porte parole la woon xam waaw xam nga day am yoo xam ne boo koy wax ci sa sëriñ day am lu muy nuru. dañuy yaakaar ne day wane sëñ baag day def lii ak leneen leneen. te ñu waaw mais jër na leeral tamit. waaw am na solo wax dëgg yàlla moo yoroon kàddoom. daan na wax ba ci yàgg ne ana wàll leen ma Moussa te boobu Cheikh Moussa Touré lay wax ku ko ziyaare waa nit bëri waa na fu mu la waxee boo fi bàyyi ko na nga jaar ci. Cheikh Moussa mu waxtaanal la parce que yàlla may na ko lool lool ba tey njabootu Cheikh Moussa wóolu nañ ko ci kàddu lool ndax taxawaay bu mu fa am ak taxawaay boo xam am na ko ci biir kër gi itam te ñu koy ñaanal suñu borom mu yàggal ko lool. loolu nag wax dëgg yàlla moo moo ñu gën a taxa a jóg parce que baatu yàlla yàlla dafa dem ba mujj nekk lu lu péjoratif. d'accord léegi dinañ ci dinañ ci ñëw blasphème bu mu doon léegi euh, Seydina. Euh, suñu problème mooy ñu bari jàpp dañoo jàpp ni yàlla yàlla ay ñaseen lañu parce que man wax dëgg ba ma découvrir nii ay murit ngeen la ngeen di wax ci Serigne Touba la jóge seen kilifa euh, Serigne Touba moo ko seexaloon daf ma bett parce que ñun li ñu jàppoon rek mooy yàlla yàlla ay ñaseen lañu euh, pour yow lan moo indi confusion boobu wala am na ci seen ci seen biir ñu jokk ci beneen tarixa ma xam nga nit ñi du mën wax rek mooy li am. Mm-hmm. nit ñi dañuy wax rek di dem li nit ñi wax ci yow nag te doonoo ko loolu amul solo warulaa métti mais yow li doon muy li baax wala muy li bon loolu mooy solo si loolu la yàlla yàtte nit moo mën a waxal boppam waaye kenn mënu ko waxal ñun li ñu doon boo ko seetee bu fekkee dañu ko xam-xam dëgg da nga yàlla yàlla amul murit amul ñeseen amul lu am jullite am mooy dëgg ku nekk nag li la boole ci lislaam nag ba nga gëm yàlla na nga ko war a gëmee teg ko fa nga ko war a teg gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga ko gëmee war teg ko fa nga ko war a teg mhm. kala ca boole war nga koo sant mhm. kooku moo tax ñeseen bi sant sëriñam murit bi sant sëñ Tuubaa mm-hmm. su ko defee nag ñun liñ am ñun ñu ngi ko jëlee ci suñu sëriñ Cheikh Moussa Touré mm-hmm. mu jëlee ko ci sëriñam Njàmme Daaru mm-hmm. mu jëlee ko ci baayam ak sëriñam sëriñ Tuubaa fala yem keneen nit nekkul suñu sëriñ Cheikh Moussa it xamaluñ ko beneen sëriñ bu dul sëñ Tuubaa ah, bàyyi ma ko tarbiya ba noppi ci moom yónni ko ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa def ci moom loolu moom am na lu koy leeral mu daal ñëpp si waat ba fi bàyyam jógee it li yoonu murit baaxoo bu fi sa jógee ña fa toog di ay doomam ñooy doon xalif mhm. loolu mooy li fi ne d'accord léegi bu ma déggee li ngay wax xëy na mooy li maam Abdou doon wax euh, tarixa heure supplémentaire la hmm? alors léegi mais nag dafa xaw a doy waar sama gars yi parce que yàlla yàlla ni ko gars yi jàppee dafa mel ni heure supplémentaire dafa mel ni diine sax diine boppam la parce ni ko ni mu ñëwee daanaka ñu bari dañ do ragal ba ñuy japp sax ni ay kilifa yu bari duggu ne dem nañ jëli ji seeni i doom dem nañ ki lan ngeen di dund yeen lan ngeen di dund. dañuy dund wax nga ko sank ci ginnaw mooy l'islam boko sété da fay ñett xaaj. l'iman l'islam ak l'ihsan mhm. kum neex man nga tok sa kër do am sëriñ té do téré doon julit té mi ngi fi amna fi. donc bo nekké julit mëna taxal waxtu juroom mëna war sa wër koor acc sa makka lépp luy lu baax nga mën caa nekk fonk say wajur yu mel na wëlbatiku tànn ab tarixa ne tarixa bi laa soxla wala fii laa jokk donc ndollal la war a doon comme yi gars yi gëm murit laa tijaan laay bañ a gis tijaan laa murit laa bañ a gis loolee ci lan la tege te yonent alayhi salaatu wasalaam mooy référence bi nga xam ne lépp lu fi waay indi bu dëppwul ak moom lu ñuy sànni la man ahdasa min amrina haza ma laysa minhu fa waradun yonent bi waxoon na ne mbir mi ku ci yokk lu ci bokkul dañ koy dàq donc jullit ñi buñ settantaloon xool ñoom ñooy xamal seen bopp ki nekk ci lislaam ak ki ci nekkul parce que lépp leer na foofu li ma ci bëggoon wax mooy tasawuf moñu bolé booleeg Cheikh Moussa. tasawuf tasawuf lam moy tasawuf. tasawuf mom la lay leral ne la bo démé ci mabul khuddus boobu tasawuf shubaan suñ tubaab da lay wax ne diine ñett xaj la moy liman l'islam ak l'ihsan ci la lay xamné na fa awulun yasikhu bi tawhid moy bu ñëk bi liman moy tolok tawhid wa sani bi tafaqil xamit ñaaral bi nga xamné moy mooy xam-xamu fiq moom mooy tolloog l'islam wa sixatu saalisi bi tasawuf yi bi nga xamné moy l'ihsan nak mom moy tolok tasawuf parce que julit dañ ko waa xaar ci ay jëf yu mu war a jëf war naa julli war naa koor war naa asaka war naa aj màkk war naa jàng alxuraan mais loolee ngay def lu baax la mais yow mi koy def soo baaxul defaru woo doo mën a def lu baax li sëñ Tuubaa wax ne jëf joo jëf bu ca rëy raxee wala ngisal rax ca wala yéem jëf ji rax ca day yàq jëf ji donc yoon tasawuf bi ngay sóobu sëriñ ba moo la ca yar ba yooyu leen mu dindi ko ci yow ba loo jëf suñu borom mën koo nangu d'accord léegi euh, euh, sëñ Mansour euh, d'après li ji bi wax mooy que tasawuf ngeen di te tasawuf tasawuf buñ koy wax euh, daanaka mënuñ ko tekkee ne mooy xaqiqa ak sharia alors léegi mais li ñu jàpp Sénégal te nit ñi yàgg ko fee jàng lépp ah mooy ah, sharia xam nga jàpp ni farataal julli farataal woor farataal joxe que en tout cas lépp luy farata ci diine rek ak sunna nga kii ko léegi xaqiqa euh, bobu nam na ngeen koy dundé dafa xawa jahal jaaxal ñu bari mu jaa ñeen yi gis ni da leen di dëddale ak seen réalité euh sociale ah dem ba say wajur bu ñu waxee doo dégg dem ba lenen ak lenen nu mu démé nonu waaw xam nga sareetu ak xaqiqatu dafa xawa dawar mais li jibi wax légui dafa am solo dafa ni gis nga ta yalla yalla di ñew wala mourid di ñew mhm. wala tidiane di ñew ponki iman, ñoo wara dajé ci yow. ba pare balaa ngaa doon murit. maanaam nga nekk nga jàng sharia. waaw waaw balaa ngaa doon nga jàng sharia. waaw balaa ngaa déedéet imaan laa la wax ponk imaan. Mhm. sharia du xam nga ponk imaan bokk na ci. waaw nga gëm yàlla. gëm yonentaam gëm gëm gëm gëm bokk na yu bari nga gëm. waaw loolu mooy sharia. waaw juróom benn gëm la. voilà déedéet sharia gën na yaatu loolu. Mhm. waaw waaw mhm. na yeneen yi waaw. waaw mais charia du gën a yaatu loolu. d'accord effectivement duñ ko tënk ci loolu. xam nga imaan am na juróom-benn ponk. waaw charia doon juróom-benn ponk la am. kon gis nga kon gën na ko yaatu. Mm-hmm. yàlla ba noppi gëm yonent bi. Mm-hmm. gëm yonent yi. gëm malaaka yi gëm malaaka yi. Mm-hmm. gëm dogal suñu borom yi. gës gëm bés penc gëm yi nga xam te ne yàlla wàcce na ko. waaw loolu képp ku mat ci yow. yow ab jullita ngoog boo ci jógee jug dox ca ponk islam yi mooy lan mooy fexe juróomi ponk lislaam bi nga fexe ko matal julli juróom woor woori koor kasa natt asaka dem màkka kasa ak ñu koy ndee noonu ba mu mat waaye yemul foofu ndax Seydina Jibril dafa ñëw gane si yonent bi foofu xam naa di ma may tuuti rek Seydina Jibril dafa gane si bi laaj ko ne ko lan mooy imaan mu wax mu ne ko luy islaam mu wax luy ixsaan mu wax bi mu demee yonent bi dafa ne saaba yi Seydina Jibril moo fi jaaroon léegi moo doon jàngal seen diine kon gis nga kon diine bi yëpp nag bu ñu doon xool benn boo ci jël ci yii rek. Mhm. am na loo manqué la. Mhm. kon faaw da ngay matal yooyu noonu. Mhm. ixsaan nag la yàlla wax ni nañ jaamu yàlla ba mu mel ni yaa ngi koy gis boo ko gisul nga xam ni moom mi ngi lay gis. gis nga foofu indiwul sa digganteeg jaam mi ngay wax nii parce nit. kat dafa am ay moomalaat mooy nit ji am na jëf yi ñi nga xamante ne yàgg sa moroom mu def yéen ko bokk. Mhm. am sa diggante ak sa borom bëri na kuy julli. di matal ponki imaan yooyu leen mat ci moom ponki islaam yooyu mat ci moom mhm. waaye nag xolam moom moom ci boppam mooy yëgal lu ko kenn di wax moom mooy yëgal boppam ni xolam seetagut ngir mën a fekki boromam. waaw mooy yëgal boppam ni xam-xamam matagut ngir mën a fekki boromam moom mooy yëgal boppam ni seetagut yow ma laa tamliku nafsun euh, akasa لنفس شيء يوم لا يوم لا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يالا دافا ني بيسا ني بو خامتاني bis boobu du jaas waaye dara du fa jëriñ du alal du xaalis lu dul xol bu sell moo fay jëriñ xol bu sell boobu leen nag li koy sellal mooy yoonu axixa foofu la ak ñëwee Mhm. gis nga dafa doon yoon bo xam te ni sa gis-gis rek yow quoi. ndax du sama xam xam bo waaw du sa xam xam bo parce que téere yi tamit ni koy ni ko nit ñi di interpréter en tout cas on va pas s'attarder sur ça. mais li ëpp parce que li nga wax vraiment c'est de ja lu leer naññ la. Mhm. mais buñu bëgguma ñu dugg xëy ci interprétation texte yi carrément parce que comprendre na carrément li nga wax mais xam nga bo né ihsan bobu hein ah, te danaka nga japp ni xëy lolu matal na lu bari war na matal lu bari ci diiné hmm? su boobaa ngay su boobaa parce que la ma koy tënkee man mooy xëy na war na am xëy na ku la mën a jàppale ci loolu gannaaw boo tënkoo boo demee ci sëriñ wala dara léegi sëriñ boobu ah est-ce que c'est forcé ci côté diine pour nga nekk ko dégg naa ko ci seen waxtaan léegi ngeen ne c'est pas forcé n'est-ce pas mm. mais ñu gis léegi ko ci yéen surtout c'est fa mel ni c'est c'est c'est ci ñun sénégalais yi waaw non ci yéen yàlla yàlla yi waaw xam nga tarixa bokkul ci ponk imaan yi. merci beaucoup. c'est ça léegi pourquoi kenn ku ne kuñ ko bëgg a génne ci la mu noonu rek ku ci ay waajuram taxaw ne lii waroo ci dugg nga ni mukk mu jaral la nga gàddaay kër gi ci yéen yéen. waaw loolu. waaw nañ bàyyi. waaw nañ bàyyi soxna Mati tontu nañ bàyyi soxna Mati tontu ci loolu moom dinaa ci sawar tontu bu baax. Mhm. Mhm. ndaxte boo boo juddoo ci islaam mhm. màggee ci islaam yaroo ci islaam sa ndey ak sa baay tuddee la turu jullit ngay jullit ñu jàngal la charia ngay jëfe charia di dem ba benn instant aspiration bi ngay am si yàlla di nga yëg ne yow am na lu la manqué sa diggante ak sa borom jërëjëf léegi sëñ euh, Seydina la la manqué ci sa diggante ak yow ak sa boroom sëriñ rek moo la ko mën a jox wala nga sellal yow nga toog nga sellal loolu ndax mën na la ko jox waaye nit am na lu mën a may boppam mhm. waaye am na lu mënta may boppam mais dama ne am na lu d'accord mais est-ce que yow par exemple sellal boobu nga jàpp ni gannaaw boo sellalee ba pare ah ihsaan boobu nga xamante ni faw nga dund ko ci wàllum xaqiqa ah jàpp nga ni sëriñ rek moo ko mën a jox nit walla nit tamit mën na sellal ci wàllu di dund nu mu sell ñu ne kuy dem te amul kilifa mhm. doyloo boppam mhm. ku gën na mën ngaa demal sa bopp soxla woo kilifa bu la neexee demal mhm. waaye ki gëm ne nag moom daa yëg ne daa manqué te am na ko ko war a mën dolli te loolu muy wuti mënu koo ñàkk seeti ko farata lay doon daal noonu la mel d' accord d' accord léegi jibi euh, mbirum yàlla yàlla ñu bari niñ ko jàppee mooy nit yéen da ngeen di gis yàlla jaxaran ci seeni biir bët ba ne nii la mel te yàlla moom ci philosophie ci lépp ci diine ci lépp ah ba ci xeyna sax ay yenn ate dem nañ ba ni euh, am ku taxaw ni l'impossibilité dans laquelle je me trouve pour prouver l'inexistence de de de Dieu me permet de dire que Dieu existe dans donte la gis ko ci ay bëtam wala lenen ak lenen mais yéen ay ay yalla yàlla taxaw ni dañuy gis yalla jaaran te boko ko gisul sax danaka sa diine matul. mais xam nga lolu question bu am solo la. Mhm. mais question la bo xam euh, amna solo nam te leeral ko dina bax mhm. mais gis naa ak gisso mhm. mais mais lolu buñ ko setantaloon rek. ki taxaw ni gis naa yow xamoo lim gis. yeggoo fi mu yegg xanaa moom moo war a mën a weddiwaat boppam waaye du yow yaa ko war a weddi gis naa ko kenn du ko weddi. parce que werante moom yaakaar naa ñaar ñu bokk gis dara ñoo mën a werante ci te lañ gis. mais ki taxaw ne gis naa te nga gis mbooloo may dolleeku saa su ne parce que gisuñ mbooloo muy wàññeeku mbooloo muy yokk lañ gis. kon war waroon na mën a am benn suspense bu mu war a jur ci ñi xamul parce que bu fekkoon du dëgg kon ni mbooloo mi doole ko te duñu ay dof ñi fi toog ñëpp daanaka am nañ seen bag toog jàng mënuñoo nax ci marché bi mënuñoo nax ci lenn. leeral la gis boobu ndax gis ci say bët jaxaran la wala gis ci xol bi ñu jàng ci diine. moo tax ma xam nga doo ñëw rek bu ma ñëwee rek wax la. Mhm. il faut ma am nu ma wiiree ba ba yegg si ci. Mhm. déet laata mbooloo ba ne ñëw parce que xëy na mbooloo ma. non ñëw mbooloo ma xëy na la koy indi am na ñu jàppee ni xëy na leneen la. Mhm. ah léegi gis bi la ma bëgg ñu lijjanti ko ba pare. gis bi lan gis la yonent saa salaam bi ko bu ñu ko laajee la mooy lixsaan. daf ne an taabudallaha ka annaka taraahu. fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. lixsaan mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis xam nga foofu dafa lu lu lu neex a dégg la mooy dafa mel ni da nga koy gis. Mhm. wante lam ca teg mooy fa in lam takun taraahu soo fi nekkul di ko gis nag. Mhm. su fekkee gisoo ko rek. Mhm. xamal ne moom mi ngi lay gis. donc boo ko déggee day mel li ñu bëggoon mooy nga gis sa borom ci lépp nekkul ne da danga naan lii yàlla lii yaa comme ko gars yi yaakaaree. déedéet dama bëgg waaw moom laa la bëgg a wax. may ma tuuti ma leeral. mooy li mu wax mooy da ngay sa borom ba mel ni yaa ngi koy gis. boo ko gisul nag boo ko gisul donc war nañ koo mën a gis. boo ko gisul jàppal ni moom lay gis donc lan lañ ma doon sa farata sa farata mooy nga fexe koo gis mhm. wante gis gi mooy da ngay gis sa borom ci lépp mhm. ci say jëf ci sa wax ci sa nekkin ci sa lépp tasawuf amul ku weddi loolu moo lay dimbali ba doo gis sa bopp mhm. dafa am benn dénkaan bu sëñ Tuubaa wax ne boo dee gis yàlla ci lépp mu di la defal yiw ci lépp ndax moo bind lépp loo ko gis mu def ko bunt bu lay àggale ci moom loo ko gisul mu def ko damay bañ li ngay wax nii damay bañ kii seetaan jàpp ni ci bës nga koy comme ni ma micro nga par exemple da ngay am yeg yeg ni yalla ci lepp loy def wala lepp loy wax rek ah. yalla nga lay top ci gis-gis ak ci dégg-dégg la ba def xam nga c'est une question bo xamné perplexe mhm. ku ci nek sa moom taalibe bi nga xam ne dafa jokk ci sëriñ sëriñ bi da koy yar ci tasawuf tàggat ko léegi nag ku ca soobul du xam na muy demee tàggat gi xam nga nu muy jaaree mm-hmm. mooy xol bi la ñuy fexe ba dootu ci yëg dara dara lu dul boromam dootu ca gis dara dara lu dul boromam léegi nag su feesee ci xol bi mm-hmm. mais sa bët bi normalement su ma la xoolee Babacar xam naa ne du yaa sàkk sa bopp waaw moom moo sa bopp waaw sa jëf yi dalaa jiitu xalaxa ko ba ma taamaloon suñu borom moo ko wax waxaat ci alxuraan moo moo ñu sàkk sàkk suñuy jëf mm-hmm. donc bu la sàkkee sàkk ci jëf yow saa su nekk war ngaa mën a nangu ndogalu yàlla ci jaam la dimbali mooy nga fexe ba bañ a gis kenn te gis jaam ñi mm-hmm. gis ne jaam ñi mënuñ dara amuñ dara suñu borom rek am moom rek am mën mm-hmm. donc ñëpp ngay jox cër ñëpp ngay warmaal ñëpp nga mooy li sañ tuwaay wax ci nëx ju ne mm-hmm. war ay fi kulli xar xaq man xalaxoo mooy mbindeef mooy saafonteel rek na nga sàmmonteeg àqu yàlla ci moom d'accord Seydina léegi euh, gis-gis boobu gis bi ngeen di naan di ngeen di gis yàlla te xëy na ci côté charia wala ñuy jaag ñu yàgg dund diine di ko sellal gis biñ koy gis mooy yëpp ko yëg ko ba xëy na seen xol ak seen seen ci seen biir xol mënatuñu sentir lu bon mënatuñu def lu bon te ñoo ñu xëy na course yóbbuwu leen foofu yéen li ngeen di def nit ñi jàpp ni xëy na ay course la yi ngeen di xëcc te xëy na jamono yéen saa salaam istixfaar am na affaire yooyu lim mën nga def euh, lim temps mais nga bañ ko imposer nit ñi ba mu mel ni farata gars yi jàpp nañu ay turu jinne sax ngeen di lim ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di xëcc lan ngeen di xëcc. la ilaha illallah. Mhm. moom la Cheikh Moussa waxoon ne moom laa woote. le yow. ku yokk yaa laaj damay laaj yow. certifiel ma ba nga duggee ci ba nga jàkkoo ba pare. Ah, ndax ba tey jii mosoo wéet lu neen lu dul laa ilaha illallah. laa ilaha illallah yor moom laa téye moom laa gëm moom laay dund. moom la ñu mosoo wéet leneen lu dul loolu. beneen bu ma wéet di salaatu ala nabi. Mhm. subhanallah. Mhm. astaghfirullah. Mhm. alors ah, def naa fi lañ ko fekk. ndax am dafa am lim buñ la imposé. kenn imposé moo benn lim. askurullah zikran kasiran. la yàlla waxoon yonti bi bamtu ko. lañ jaarale soxna mati li jibi wax de dafa melni leer na dafa melni leer na mhm. mais ñu jip ni surtout ci jigéen yi nga xamanteni xéer ñom ñoy dundu li yalla yalla di dundu han ah? ñen ñu dem ba naan leen sax bala nga set faw ñu wat la wat sa bop waw wat say awra wat lepp pour que nga doga set pour que nga doga gis yalla lolu yow en tant que jigéen dundu nga lool non non man nak dunduma lolu mhm. ñun bu ñu ñëwé ci suñu wasila mhm. euh jébalu ci mom nek dañu bëgg nga yéggalé ñu ci yalla moom daf ñuy nangul njëbbal jaayanteek moom pour mu yeggaleñ ci yàlla daf ñuy nangul njëbal teg ñu ci yoon jox ñu nag nañu tudd leen baat bi nu mu gën a bare muy laa ilaaha laa te mosuñu leen imposer nombre duñ la ko imposer parce que sëriñ bi woowu la yow yaa ñëw ba ci moom réeré sa borom ne ko damaa bëgg xam sama borom kon kéem ndaa lay jox rek dafa mel ni ndaalu ndaa loo xam ne kaasu ngay jël di tànk mhm. tey bu la imposé cent te cent mandiwu la du la arrangé mhm. bu la imposé mille te mille ëpp ci yow du la arrangé da lay jox ndaale rek na la naanal mhm. yow yaa xam sa bopp xam nga fi nga toll ci xiif yàlla xam nga fi nga toll tam pour setal sa ruuxu kon kéem noo gën a mun a xëccee rek mu gën la arrangé rek ngay gën a dem sëñ bi moom moom guide spirituel la moom sa ruux la amal affaire mu ngi ne jàkk sa ruux gi mhm. bu setee xam na bu tilimee xam na mhm. waaye yow tamit am nga yëg-yëg goo xamante ne lépp looy xëcc muy laa ilaaha laa ci baat nu mu ti toll mhm. yow di nga xam effet bi muy def ci yow ak bu mu dul def ci yow sànq dama la doon bëgg tontu mais danga ma dagg ndaxte danga ne ndax léeg-léeg seen waajur yi tere leen sax mhm. ngeen bañ mu jaral leen ngeen génn kër gi mhm. falaa doon jëm ak yow ne ndey ak baay dina la yar ci charia nga dund charia mais di nga dem ba benn instant am lu la manqué nga jug uti ko mhm. fekkoo ko ci sa yaay fekkoo ko ci sa papa nga dem uti wasi la pour mu teg la ci yoon eggale la ci sa borom kooku bu la tegee ci yoon teg la ci yoon teg la parce que dañuy wax eh, yegg ci yàlla ak xam yàlla ak gis yàlla benn la kaddu yi la rek mu mel ne dama ñëw ne ko chauffeur dama bëgg nga yóbbu ma Saint-Louis mu ne ma yéegal ma yéeg mu takk samay bët wóolu bu ma ko wóoloo tax damay toog du ma wax sax du ma ne ko jaaree la ma fii moom mooy dem ba ndar gaare ne ma wàccal ma wàcc mu tekki samay bët ne ma ndara ngi nii su tekkiwul sama bët su ma nee ndara ngi nii mun naa bañ a xam ndax yegg naa ndar mhm. mais keroog bi mu ko teggee tekkee ba mu ne jàkk gis pont Faidherbe bi xam naa ne fii ndar la mhm. kon yegg naa gis naa xam naa mhm. kon ñett yi ñooy ànd mhm. gis yàlla nag boo ko déggee duñ la joxoñ ne la yàllaa nga ne mhm. yàlla dafa nekk fépp jullit boo ko laaj fu yàlla nekk mu ne la mu ngi fépp waaw xam nga yàlla ngi fépp moom waaw gis-gis la moom mooy topp yàlla leer la yàlla leer la yàlla dañ koy xam si tur xam ko si jëmm xam ko ci melo xam ko ci jëf te yii moo am ci àdduna melo yàlla am na melo waa melokaan boo gis melokaan boo gis war nga ci gis yàlla jëmm joo gis war nga ci gis yàlla kaddu war nga ci dégg yàlla jëf joo gis war nga si jëf yàlla mhm. gis yàlla mhm. loolu moo war a gis yàlla gi te ruuxu mhm. mooy tilim mais bu setee kiiraay yi ñu koy dindal moo tax muy janoog boroomam day fes ci xol ba ball ci cër yi jërëjëf li nga wax nii leer na nañ mu xaw ñu jaaxal sëñ Mansour kii dafa ne yàlla boo ko gisee dégg ko xam ko ah, euh, daanaka fa mu lay yóbbu dalay sori lépp lu bon da lay sori lépp luy sobe te yéen ñuy gis gaa yi uh-huh. ah, def seeni rasta hmm, wàcc seen i tubéy di dugg biir boite seen seeni kurus naan yàlla yàlla yàlla yàlla dafa pare naan la sax di di gëm loo ni man nekkuma fi. Hmm. yow yaa ma gis nii waaye man nekkuma fi. Hmm. Ah? waaye te wala wa ab nit taxaw te butéelu sàngaraam ab jeune ma oh, je parle pas des autres je parle de des jeunes ah teg butéelu sàngaraam te kurusam. nan la yow yaa gis sàngara waaye man gisuma lii man yàlla laa gis neen noonu nu ngeen koy gisee

moom am benn waaye buy jokk ci yéen buy taxaw mu ngi sur YouTube. waa gis regardé déet weddi wala de dama ne la man li ngay wax nii man maa fa gisul. Mhm. mënu ma ci wax. d' accord xanaa duñ ma wax loo koy ci ma gisut. Mhm. waaw léegi li li am solo mooy te loolu la ji bi doon wax sànq diggante gis gis naa ak gisuma. Mhm. moom bi ma lay gisuma ca la wax ci jeex. mais ki la ki gis tamit mbir ne la gis na ko ni mu la koy waxee sànq yaa amati ci gis yàlla bi nga laajte dafa am solo ñu leeral foofu nee na la yàlla dafa am tur te loolu kenn du muy Allah. am melo. waaw te loolu kenn du ko mhm. am jëmm am jëf.

c'est-à-dire. ay nit lañu waaw waaw xam nga soo bàyyiwul ma yëgal tamit. dafay dafay day xaw a doy waar. xullaax aaxiru wal baatinu. والظاهر أول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ñeent melokaanu yàllaa ngi noonu yàlla nee na moom moo feeñ waaw mais gis nga lépp lu feeñ lu feeñ mooy luñ dul jeex lu feeñ ba ni dang dangaral ba kenn dootu ko seet lu feeñ mooy lu nëbbuwut waaw mais gis nga kon foofu rek mën nañ ci déggee lu bëri. bismillah foofu rek mën nañ dé du ma du ma ci sori. mais foofu rek mën nañ ci déggee lu bëri ngir wax la ni melokaanu yàlla boobu leen fa mu feeñee na a xoolee tamit ba xam. Mhm. ba xam ndax dinañ gis wala duñ gis. lu bon ba doo yëg lu dul moom. déedéet. Hmm, lan la déedéet. lan la yàlla fa mu feeñee. Hmm. mooy ci yonent yàlla Muhammad. Hmm, mooy lan. laataa yonent yi di ñëw. xamoon nañu yàlla am na de. gis nga yéefar kafir yi ñu njëkkoon ya xamoon nañ yàlla am na. bien sûr waaye yëg ni jotee wuñ ca. moo tax ñu teg ay xërëm yoo xam te ni mooy dox seen diggante ak seen borom. d'accord léegi est-ce que. bi yàlla naan xatamallahu ala qulubihim dafa kaste seen i xol amul fenn fu ne seen i bët mais seen i xol rek lay wax. seni xol dafa kaste seni xol ba duñu ma gis wala ba duñu ma yegg mais amul fenn fo ci alcorane fo meuna indil wala ci sunna fo meuna indil ni kaste na seni beut wala seni cër waaw bismillah mais foofu bo yeggalee ay bi xam suñu borom dane khatama la ala khulubihim lim ci teg wala absaarihim xatamalaaw ala khulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim mais xam ci xol ba la merci mais xol bu fattoo dégg yaqku merci beaucoup gis tam yaqku merci xol bu defaroo. Mhm. dégg defaru gis defaru. Mhm. donc suñu borom ku mu tinki sa xol. ca tinki sa xol. mooy base bi moom laa la wax mooy base bi xam nga dañuy daje. xam nga ñàkk waxtaan moo garaaw. bismillah mais ñu toogee gisee gis nga yoon yi jëm euh, yi jëm yi jëm yi jëm ci suñu borom kenn xamu nu mu toll mais buñ bokkee daje ñu waxtaanee rek juboo jërëjëf yàlla suñu borom ci yàlla ci ci ci xol lañ koy yëg. Mhm. ci xol la leer bi tàbbi léegi nag xol boobu bu tàbbee ci leer gi bu tàbbee ci xol xol defaru mhm. mais dégg nopp nopp li mu daan dégg day soppeeku. jërëjëf nopp li mu daan gis day soppeeku. parce mhm. que li sëñ Tuwaay wax ci mu lay nu su doon ne. alxalbu kal maliki fil aada maa yemil tey maq ci daay sëñ Tuwaay nee na xol mooy buuru cër yi fu xol jéngi jëm rek cër ya topp ko fa. jërëjëf donc nit mën naa nekk ci safaan di ca jëf di ca wax di ca yëngu lu mel noonu. xol baa tilim su ko defee cheikhul murabbi day ñëw tink xol defar xol xol jël leeru yàlla sol ci xol ba nga xam ne mën nga nit mën nay wax ay caaxaan yu doy waar mais yow boo ko dégloo dégg ci loo xam ne dalay delloo ci sa borom nit mën naa sol melokaan bu doy waar ku ne di wax te yow boo ko xoolee ko gis yàlla suñu borom ngay gis te yàlla da koo wax ci alxuraan tax ma wax foofu rek mu jeex mooy li wax ne wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsiroon dana ci kaw suuf si bu ngeen ci xoolee gis ci samay samay kawtéef samay aaya ni ngay demee tim alxuraan gis ay aaya yoo xam ne boo ko jàngee dalay tegtal sa borom di la ci yàlla di la sa borom noonu nga mën a xoolee ci aaya yi nga xam ne ci suuf si la ne mu mën laa delloo ci sa borom donc gis gi foofee rek la nekkul lu compliqué lu simple la jërëjëf léegi euh, sëñ Seydina est-ce que yow par mën nga jël ci say responsabilité nii képp ka nga xamante ne xëy na mu ngi defee noonu hmm, di di jël baatu laa ilaha illallah parce que am na ñi nga xamante ni moom baat yañ ma wax ni moom la ñuy wérde dégguma ci laa ilaha illallah yeneen baat la xam nga mais intérêt débat bi xëy na du pour wax lii wala lële pour wax ni xëy na yéen nga xam te ne yéenay dund lii hmm, euh, ndax la ngeen di dund bokk na ak li nga xamante ni sénégalais moom lañ gëm parce que laa ba tey ji débat bi mu ngi may waaja leeral ni li ngeen di gëm bokkut ak li ngeen gëm te ngeen koy dund bokkut ak xëy na li nit ñi di gis ah léegi est-ce que yow mën nga jël see responsabilités jàpp ni ñooñu la ñuy dund te jàpp ne ay yàlla yàlla lañ parce que tamit bu ñu fàtte ni dafa ay kuréel ay néeg dañoo bari ci biir am na ñuy woote am na ku ne yëmbal am na ku ne fii sax maris la ngeen may wax yéen ak la wax moom ça fait deux hein est-ce que mën ngeen kooku doontale ko moom ci Cheikh Moussa la jokk parce que moom jàpp ne moom mooy wasilam la muy dund dëgg. ñun muy taalibe Cheikh Moussa ak ku dul taalibe Cheikh Moussa. Mhm. la nga ne buñ ci gisee benn njëriñ boo ñu ko waxee boo ñu waxul buñ ko mënee rocci sàcc ko. danañ ko sàcc jël ko jël ko di ko jëfee mhm. ngir jëriñu parce que jëriñu lañ bëgg waaye ki ñu topp nag tam dooñu moom lañ gëm ku dul moom dégluwuñ la te mhm. gëmuñ la mhm. mooy Cheikh Moussa Cheikh Moussa moomu nag li wax ak ni ko waxee moo ñu doy moom ci li mu mooy li Sëñ Tuubaa woote te mooy xam yàlla ak àggali jaam ci yàlla. Mhm. li la Seex Musaa woote li la doon dund. Mhm. na mu ko dundee it nag Seex Musaa kenn du ko gis ba yàpp ko. xam nga koo xam ne damay jox benn détail bu ndaw. Mhm. koo xam ne da taxaw ci say biir ay nit ñoo xam ne laa contre. waaw nga leen mosuma mooy yàlla. waaw te say noonu taxaw. te kenn mosta seede foo xam ne yow mooy nga yàlla. loolu doy na waar di. xam nga jinne ñi xamul ñoo ko na waaye nit pire du naw jinne naan tur jinne lañ leen jox ñoo xëy na ñoom seen xel moo ne ci jinne xëy na dañoo ñëw jinne wala ñu naw jinne wala ñu am lu ñu soxlaal jinne waaye nit jinne koy soxlaal waaye du soxlaal jinne bay jël tur jinne qul uhiya ilayya annahu ijtama'a nafarun mina jinni fa qaalu inna sami'na qur'aanan ajaban yahdii ilaa rushdi fa aamanna bihi kooku jinne ya ko soxla woon soxla woon jinne ya moo yoroon lu jinne gëm dégg ko ne ko ñëw nañ ku koy nit ñun li ñu yor jinne ñoo sàkku ci ñun duñ sàkku ci ne dara ba leen jox tur jinne waaye li ñu yor nag jinne sax ñu ci biiram laa ilaha illallah wax doo laa sharika loolu la ñu yor kooku nag du ñun du yow du jinne du malaaka du keneen ku yàlla bind rek yaa ci am yaa moom ngeen ci am taalaw ila kalimatin sawaun baynana wa baynakum allah nahbuda illallah benn baat boo xam ne ki la ko jox ak yow mi ngi ko yéene ci am mooy laa ilaha illallah loolu rek lañ ko yàlla ko joxe waskuro la qiyaman wa qu'udan wala junukum waskuro la bukran wasala waskuro la sigran kasiran di def naa yàlla ko digal junni bu ne sëñ Tuubaa ne wala tuaadu yu faaxu laa ilaha illallah bu leen noonu mukk képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah bu ko noonu gune gi téye kursam nga ne ko looy tudd mu la laa ilaha illallah gëmmatoo nga naan tudd jënd nga yor ngir lan xanaa yow da ngaa ragalul yàlla su fekkoon ñeme nga yàlla ba nga ko laajee mu wax la la muy dund da nga waroon gëm rek waaye na ko du loola te yow la mu xamuloo ko xam nga yow yaa ngi bëgg dugg ci erreur sooy weddi li ngay wedd daf la war a leer waaye toog mbir rek neexul rek nga ne waaye wax rek nga ne xam li ma xamul te tegoo ko fenn kat gëstuwuloo mbir ma ba am ci lu leer yow da dégg rek te la nga dégg leer la nga taxaw weddi ci loola ndax yow ragal nga yàlla nit bu ragalee yàlla day wax lu mu xam loo xamul nga noppi ca te màndu ca boo bëggee nag nga laaj ñu tegal la lu leer soo la neexee nga gëm bu la neexee nga weddi waaye mbir moo xam ne leer loo ko ci ña ko xam. ndax da nga di ci mbedd mi rek taxaw di wedd rek na ta am ba keñ ta kat weddu woo len kat yalla ngay weddi gatch rek nga caa jëlee bo legge ndax da nga wedd lo xamul kon liñ len jox moy la ilaha illallah amuñ soxla ci jinne amuñ soxla ci jinne tay amuñ sox ci jinne ëlëk yalla lañ gëm ak ab yonantam ñuy jaamu tab duñ ko bokkale kenn liñ len jox moy la ilaha illallah kese Tali lii la yalla joxe joxuñ leen ko nag ngir tudd leen ko yem ca waaye dañ leen ko xamal waaw joxuñ leen ko ngir tudd ki yem ca waaye dañ leen ko xamal laa ilaha illa dañ koy tudd naam waaye dañ koy xam to kullu la suñu tubaab mat moo naa dàq la jënd xadaa tudd ko xam ko nangu ko si kër lam ci da mooy xas ba ko fiiha annaha tutaa tamun jantar bi na dafa fitan waaye nag wax ko rek taxu nga jon mbóor ma de wa kas fu naa asraar lay see liix xun naa li kaw ni sirrihi baran am yax te Tuubaa ne mboot moomu leen duñ ko jotee ci téere jàng du ko maye waaw mboot la mu nekk ci géej te nekk ci xóot-xóoti géej foo man yu riskat soli te dama na yu talliqi dunya talaqan bay na ku ko bëgg am da nga fas àddina woon ko gannaaw xuuti ko la ko woon a axfa min an tuktaba fii saxifati li kulli si tasarrufi bindkat yëpp buñ dajoon bëgg ko melal mënuñ ko melal bal tunaalu bi taslimi wal mu mujaahada laa bi munaakatin wal mubaada jébbulu ak jaar sa bakkan ak jege sëñ bi rek koy may tarixa murit taalibe dong lañ ci doon sunu sëriñ bi nga xam ne mooy sunu sëriñ di sunu yaakaar taalibe la ci yoon wi sëñ Tuubaa rek kay sëriñ ku dul moom rek taalibe nga kii ko fi nekkal nag tey moo toog toogay sëñ Tuubaa kon moom lañ jàppee sëñ Tuubaa bokk gëm lenn bokk duñ lenn def leen ni suñu bopp rek xamal leen li ñu xam ñu dund ko rek xemoo ci kanam yàlla ñu jaamu yàlla ma jaamu yàlla boo ëllëgee yàlla boo la ñu fay waaye dugguñ kenn dara bu ëllëgee nag sama diggante taalibe yi mooy li nga xam ne moom lañ gëm te di ko dund te xam ko loolu la ñu toppee ndax taalibe bi ak sëriñ bu ñu ko waxee rek am na lu jaar seen mooy xam-xam la sëriñ ba xam ba ñu ne ko sëriñ ba taalibe boobu loolu laa ko tax a jóg. loolee nag ñun moom lañ def ci ñoom ñu xam ko ni ñu ko xamee tey kenn ku nekk ci ñoom liñ xam rek lañ xam bu ñu ëppee xel sax bala lañ gën ñoo farlu xam ci lu ñu xam ba am ñu yàlla kenn moomu ko lii lañ àndee rek ñu bokk nag gëm yàlla xam yàlla bokk jaamu yàlla xànd nag jëm ci yàlla rek. ak di leen sant di leen ñaanal tey jégalu waxtaan wi ku ci dégg lu xam ne xëy na dis na wala xaw na métti itam jubluwuñ ko ca leeral lañ ci jublu parce que li ñuy waxee di ko dundee di ko yëngatoo coow li dafa bëri lool waaye nag ba àdduna sosoo ba léegi ku ko mos a laal coow topp la amul kenn ko mos laal liñ laal te coow topp la waaye coow loo xam du mujj fenn du mujj fenn du mujj fenn fa yëpp mujj rek lay mujj fekk ñu ngi tegu ci yoon nag yoon nag mooy xàkk saa dox ci xam rek. ak xel su ko defee nag loolee saa su ne lañ dund kon ñu ngi jégalu ñëpp du leen sant di leen gërëm ci bi ngeen defal ma yàlla yokk leen tabarke leen baax yàlla ma faj ko aajo mm, salaamaaleykum wa rahmatullah léegi Euh, chers téléspectateurs di leen fàttali ni ba tey yéen seen émission parlons jeunes tey jii ñu dajale fii ay yàlla yàlla donc ñuy waxtaanee en tout cas ñoom seen ngëm-ngëm xëy na la mu doon muy wàllum soufisme ah mu indi coow lu bare Sénégal mais sëñ ji bi d'après li Seydina wax léegi ah euh, yow est-ce que tamit parce que. Cheikh Moussa Cissé. bari woon na ay bari amoon na njaboot. Mhm. amoon na tamit ñu jokkoo woon ci moom. Mhm. mais est-ce que d'accord nga tamit ni am na ñu nekk ci biir ah yàlla yàllisme xam na ndax noonu laa ko mën a tuddee wala ñiy dund tasawuf. Mhm. ay ndaw yu dund tasawuf. te ñuy doxalee naka su noonu ndax d'accord nga tamit ci loolu ni am na. mais bu wér wér. depuis ah. dama lay laajaat ban mbooloo moo mucc ci loolu amul. amul benn mbooloo boo demee ci kaso bi fekk fay murit yaa xa donte tooñu ma sax ñi ci kaso bi mais ki tooñ ba dugg kenn jombul kenn kasa donc mbooloo moo dem fekk fa ñoo xam ne nañ mel ak na kilifa ko bëggoon ku ni mel amul yonent ay salaam bi muy dund ci la yàlla suñu borom wàccee suratul munafiqun ñoo xam ne dañ rax jullit ñi di woote ngëm te fekk dëggul ci ñoom sëñ Tuubaa wax na ne am na ay taalibe yoo xam ne boo léegi du leen gis ndax lañ nekk man sëñ Tuubaa dama caa nekkutoon Cheikh Moussa li mu wax mooy sëriñ Tuubaa jéego ba daa gudd loolu te waaye fas yéene naa fu mu teggee ab jéegoom ma teg fa sama tànk moo tax ma ne ni mu toppee sëriñ Tuubaa ñun buñ ko ni toppee bu sëñ Tuubaa yeggee mu yegg ñun tam ñu yegg wante moom leeroon na ko ne lu yàlla mayul sëriñ Tuubaa may ko Cheikh Tidiane may ko Seydina Aïssatou Wassa mooy sa mbooloo ñëpp bokk mel ni nga ko bëggee moom ndax dana ko am. su ko defee ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñooy xool yàlla yàlla geeg ñu mel ne gis ci ña nga xam ne meluñ nañ war a mel mhm. ñoom parce que Sénégal lu bon moo fi gën gaaw a siiw buñ gisoon yàlla yàlla bu correct nekk ci lu baax tey sellal ka nga xam ne moo nekk ci ay tooxi dana kooku la ñuy siiwal génne ko ci journaux yeeg wax wax wax cool yu bari ñu yaakaar ne ñëpp nii lañ mel fekk meluñu ko mhm. te puis itam considération bi nit ki am ci yow par rapport ak sa diggante sa borom am na solo amul solo yàlla àtte ci yow dëgg mhm. su ko defee nag boo dee nit te bëgg lu baax sóobu ci aw yoon woo xam ne ci yàlla sa borom loola jëmee yow bu fekkee defaru woo sax nit ñi danañ la wax ne defarul yow fu ñu la fekk yaa ngi kurus fu ñu la fekk yaa ngi naan danga àgg ci yàlla te mënoo wax lu jub mënoo def lu jub voilà loolu te dafa bari nag ci seen kuréel gi déet d'accord naa ci li nga njëkk a wax mooy ñi ngeen ciy boole te bokkuñ ci xam nga nit wala yéen ñii njëkk a wax ci yéen te te te bokk ci te ñàkk a comprendre xam nga loolu mën na nekk nit ki mën naa ñëw soobu ci yoon te desee defaru wante ku yegg defaru parce que yàlla suñu borom dafay ku sell biir ak biti ku sellul PM doo fa tàbbi parce que bañ nañ ko buñ koy misal dañ naan xadratul xursi xadratul xursi moy pays bu sel bi kon kàddu gi da wara sel jëf ji sel jëm ji sel melokaan wi sel parce que xam-xam lañ def ci yow te xam-xam su fekke mo nek ci moy régir sa jëf yow journalisme bu fekke maîtriser nga ko lépp lo présenter ku xam journalisme bu la xolé xam na kat ki limi wax maîtriser nako ki jàng tailleur noonu ki jàng mécanicien noonu bu jëf jotee ci lañuy xam mom dëgëre xam-xamam te xam-xam bu gëna tedd tawhid xam-xam bu gëna tedd maarifa ci lislaam boo jàngee message suñ tuwaa dana nihaayatu simaari diin fi haasi yu dunya xusulul maarifa nee na diine boo ko doon jëfa mu lay jox ay meññantam di la jox ay meññantam meññantam bi gën a foor mooy nga am maarifa te ba mu la koy wax dane waxuma ko sax wante imaam Ghazali moo wax wax ju tedd ji mooy maarifa mooy gën ji koom bu ab jullit mën a làq ci lislaam kon lañ taggee yoon esaatu saa muy ay jikko yow mi ne xam nga yàlla yow mi ne àgg nga ci yàlla ci yow la gën a war te mbooleem ñi sóobu ci tasawuf muy Abdou Khadir Jilani Cheikh Tidiane Chérif muy mbooleem góor yàlla koo ci toogal. koo ci gëstu léegi xam nga ci lépp. d'accord accord qui euh, kii euh, ma seigne Mansour jox moom micro bi Mansour li wax par exemple ñi mësoon soobu yépp ci tasawuf hein. Ah, Donc tel que débat ci tasawuf ak charia dafa bari ka dafa yàgg na ci ci diine avant avant avant tay. léegi ab Cheikh Abdou Khadir Jeylaani am na fu ñuy nettali benn xisa ci mom. ñu toog naak sa toog ay talibem ñuy sikkar ba aalu ba mu ñu gay allah allah ba mu jékki nan ana anallah anallah Allah. bu buñ koy tekki moy man ma yalla man ma yalla. Mm. ba mu wàccee ne ko sëñ bi de yaa ngi doon wax sànq anallah anallah maanaan man maa yàlla man maa yàlla ni yow yaa yàlla hmm. mu ne loolu de bu feen ko dégg te mën ngeen tàggali sama bopp ak sama baat ah hmm. te loolu ci charia dañ koy dégg maanaam nit ku taxaw di woote ni mooy yàlla kooku dagan nakaaray ah léegi mag ñi doon wax ni tasawu balaa nga ciy dugg da nga war a jàng sa diine mokkal alquran am ci dégg-dégg bu leer mokkal a ba mu leer nañ bu ko defee xëy na am na yenn martaba yooyu toll wala yenn kiraama yoo xam ni doo yooyu toll doo ta gis sa bopp mais yàlla rek nga cay gis ba tax na tey jii nit ñi jàpp ni yéen da ngeen juutal affaire bi xarit à dire bari ci dugg di di jàll à côté ah, dañ dul c'est-à-dire faatixa bu mat sax bu leer mënuñu ko tari julli bu mat sax mënuñ ko kii naan dañuy dund tasawuf est du loolu tamit moo indi problème. waa déet euh, nit yi nga xamante ne kilifa yi. Mhm. ñiy wootee buñ nee yoonu tasawuf dafa may kilifa yu ko jiite. Mhm. kilifa yooyu leen dañu xam feebaru xol bu baax xam feebaru ruux bu baax gis nga oote yi ñu woote woote luñ ko seen bopp xëyuñu xëy rek woote. Mhm. ñooñu bu ñu wootee jaam ñi leen di gane si bëgg ànd ak ñoom ca yoon wa ñu woote ak ca xam-xam ba ñu woote feebar bu mu ci doon danañ ko faj. waaw ah, ah, am na si yoo xam te ne day laaj temps nag. am na yoo xam te ne tamit xëy mën na bañ a durable waaye feebar bu mu ci mun ci doon danañ ko faj te ña koy fajee lan turu yàlla. ak xam-xamu yàlla kese mooy tax ñu la ko yaamati waxee sànq da ngay dem ba sa xol day dañ ci nëx-nëx dañ ci jéng-jéng dem ba leer nañ nga mën a jaamu sa borom ba doo mooy yàlla ci dara ci biir ak ci biti nii la demee. Mhm. su ko defee kon. Mhm. Mhm. Euh, li nga wax léegi ne euh, dañu war a tàmbalee ci fiq loolu téere yu bëri wax nañ ko ah, dañu war a tàmbalee ci fiq boo jógee ci fiq dal ci tasawuf waaw téere yu bëri wax nañ ko waaye liñ ci mën a indi rek mooy kenn ku ci ne yoon tasawuf ki ci sóobu ba jaayanteeg yàlla ba am ngërëmal yàlla moom su wootee ci yoonam méthode ba muy jaarale yoon moom tënkatul ci téere yi moom d'accord léegi soxna Mati est que tamit daa gisoo ni ñu bari ngi fii woote ah ci wàllum tasawuf wala ci wàllum yaata ci wàllum yàlla bay détourné ay doomu jàmbur parce que am na benn histoire bu ñu déggoon par exemple qui s'est passé à Kaolack waa ji jigéen lay jàpp di ko tëddee benn ñaar te saa su ne da koy naan yépp yàlla li bokk na ci la lay eggale ca yàlla loolu boo ko déggee soxna si doy de. waaw loolu dina yéeme ndaxte ñun euh, yoon bi ñu teg. Mhm. yoonu selal la yoonu selal boobu maanaam sa ruuxu la ñuy yar. Mhm. tarbiya ko. ba mu sell ba yëg ne sell na bu boobaa day ball si cër yi. Mhm. ball gi muy ball si cër yi nag dina tax say cër ñoom tamit am am yar am euh, nga mun leen sellal. ñu mhm. am yar mhm. bu boobaa yow xam nga ni lépp lu la yàlla tere. yàlla amu si intérêt mais yow yaa si am intérêt bu fekkee gindeeku nga dëgg. ci leeru yàlla googu yow di nga toog leer gi nga àndal di la niital. lii moo sell ci yow lii sellul ci yow mhm. ni ngay toogee xam ne man de dama war a lekk doo lekk euh, ñax ceeb nga war a lekk nga lekk ceeb noonu ngay xam ne su ruux gi tamit de su ma defee lii mu wàññi ko su ma defee lii mu yokk ko mhm. kon sëriñ bi keroog bi mu tàbbalee ci yow leeru laa la illallaah la wàccoog yow mhm. jox na la torche. boo duggee si la wàccoog yow wala tamit lay tax mu mën laa jege pour defee na naka su dul. la wàccoog yow c'est des la wàccoog yow. ci laay leer cest dafa am ay mbir yu leer waa ji Kaolack mu ngi mu ngi mu ngi. mu ngi affaire baa ngi woon tribunal cest di dire dafa leeroon ni kii moom da doom tëddee doomu jàmbur te loolu bari na ci yoon bi ndax loolu yow cautionné nga ko cest à dund nga ko wala par exemple gis nga ko wala wala tamit. Euh, si yow laa ko déggee mais dund gi laa lay andil. Mhm. na la leer gi bu tabbee ci yow. Mhm. ni ngay war a dundee. ni nga war a dundee kooku leer gi moo lay moo lay gide mhm. leer googu leer gu sell la moo lay gide mhm. dafa mel ni nga dugg ci àll bu lëndam ñu jox la torche mhm. sang bi kon keroog bi mu la gindee torche la la jox soo duggee ci lëndam xamoo fooy teg sa tànk nga taal sa torche nit di nga dem dafa mel ni kon jël nañu teg ñu siraati xal mu saxim boo jengee fii nag gauche wala droite nga tàbbi ci safara te da nga koy yëg kon yow foofu su fekkee ne sa objectif mooy yegg ci yàlla jeex ci yàlla kon yow siraati xal mu saxim boobu doo ko wàcc te siraati xal mu saxim du lenn lu dul éducation ruuxu ruuxu bi lañ ñuy yar ba ci ba mu ball si cër yi ba cër yi dootul mënati mooy yàlla kon ki nga xam ne peut-être ma ngay mooy kooku xëy na taxawagul ci siraat mhm. waaye ki taxaw ci siraat yow xam nga lii lii la lii moo la ciy fekk kooku yow loo gën a jege yàlla gën a ragal yàlla mhm. gën a ragal a mooy mhm. te ci loolu la ñuy te keroog yombal xiyaam dañuy laaj ñun suñu waajur yi ana noo yare woon sa doom yi te bu boobaa sëriñ bi wàccal na la benn layoo ndax jëlal na la sa doom yaral la ko tegal ko ci siraat xal mustaqim d'accord te bañ cee gis boppam je pense que du ci gis boppam

mooy ña nga xamante ni daanaka melokaan ya ñuy mel daa ragallu sax waxtu malaak nga leen ngay dégg la ñuy wax te lañuy wax amul fenn luñ ci indi aaya wala xadis mais lépp ci ko teb xel la ñuy wax ca gannaaw xel la yow la nga gis lii nga gis ak man leneen laay dund yow lii nga gis alors que yàlla am na leneen suñu dund ah yàlla daf ci dogal avant yàlla du lii ci julli la ñuy lakkee wala leneen yow gisoo ni loolu daa yomb torop te ay te ay sëriñee leen koy sëriñee jël doomu jaambur di leen def loolu loolu waaw xam nga yàlla daf ñu xaw a nattu ci jotaay bi tuuti mhm. liñ bëgg a leeral liñ ko bëgg a leeralee mënuñu ko ndax temps mayuñu ko. waaw bi ñu parce que am na bari bëggoon ñëw gën ko leeralaat pour mu gën a leer parce que am na ñuy déglu même bu fekkee yow taxoo. Mhm. su ko defee dañ toll ci jamono joo xam ne ku nekk ay wax te kenn mënta tere nit ñi wax. Mhm. waaye mbaax fa mu nekkoon démb ak barki démb. yàlla la mu bëggoon démb. moom la bëgg tey moom la bëgg ëllëg. mbon fa mu nekkoon fa la ne ku bëgg a bon rek bon ku bëgg a baax baax boo gisee nag ñi baax nag nga war leen roy war a topp seen ginnaaw te déglu leen dégluwoo leen nga dem seet ko bon nga topp ci ginnaaw yéen ñaar yéen a seen jëf yéen ko jëf yéen ko yenu waaye ñiy def lu baax moom bu buñ jëfee lu baax ñoo ko yenu mais li ma wax ne du ñoom du ñun mais lam solo bu ñuy wane Cheikh Moussa lañ war a wane te Cheikh Moussa moom lim jàngale lu leer la wax naan ku jàng ñëwal danaa la wax loo dul dindi ci téere bi te borom xam-xam bu mos a toog moom doo ko yàpp te dana la wax loo mënta dindi te xamoo ko woon te yaa ngi jàng téere bi d'accord léegi am na am na euh, ji bi am na fu gaay naan euh, sëñ Moussa moomu mooy maanaam njàmbe ngeen baal ma xëri ci kàddu gi lool mooy que ni moom la nag bi rayoon affaire yooyu ngeen baal ma loolu gaay dañ koy wax de loolu moom dara amu ci wax dëgg yàlla wax bu ñaaw ñaaw la te bu siiw la it waaye sori na li am lool lool sax lool. Mhm. moom dem àdduna génn àdduna gu sedd guy la ko suñu borom baaxee. Mhm. bi mu nekk ci tawat ji nga xam ne moo ko fi jëlee sax kóllëre gim mu seqoon ak Cheikh Saliou Mbacke tax na ba bàjj mañ ko sàngee moom moo ko joxoon donc. buñ wëlbati ko ci ginnaaw naan naga ko ay wax yu day waar lañ ciy dégg waaye moom li ñu wax ci réew mi rek li ñuy sos dafa xaw a bari waaye loolu ca la bokk waaye sori na lool li am ñu koy wax it ñu ngi leen di ñaan ñu tuub ko parce que nitu yàlla bu liggéeyal yàlla lu toll ni Cheikh Moussa liggéey mhm. xanaa yàlla suñu borom du ko nattul parce que tamit du yàlla yàlla ñoo ko tooñ ñen ci yéen ñoo togn koku ba nañuy waxee wala nañuy defee xëy na yóbboo nit ki xëy mu mën wax loolu mën am parce que bari na ci fi amna ko am na koo xam ne boo waxee Cheikh Moussa ci kanamam. Mhm. mën na tégg lu doy waar parce que dafa am ku jëflanteel kuy woote woone ci biir la bokk. Mhm. ku ko def lu ko naqari su ko defee kilifa ga lay wax loolee nag maa ngi soñu sama bopp ak képp koo xam ne ñoo bokk wasila nga fexe ba kenn bañ a Cheikh Moussa ci yow te lim def ci ñun buñ ko dundee dëgg-dëgg kenn du xeeb sa kàddu kenn du xeeb sa jëf parce que lépp yow lii doon sa yitte mooy nga defee ko na ko borom gërëmee tasawuf loolu lay jariñ dañuy ñëw yar la tàggat la ba su wax jotee lii neex na Babacar lii neex na diw ak diw sa yoon nekku ci nam neexee yàlla nga koy defee fa kullu ma fii ridallahi jarra falaa taxa fii malaamatal war sëñ Tuubaa nee lépp loo xam ne ngërëmal yàllaa cay daw mhm. bul ca ragal benn mbindeef d'accord léegi Mansour une dernière question ñu jàpp ni xëy na ñu bari jàppoon ni euh, tasawuf balaa naka balaa nga ko doon dund doon nga jógee Sénégal dem Mauritanie dem feneen ak feneen ñu tarbile ci xool tarbile la ci lépp ah la yow ni en tout yow mi daal dara dootul yëngalati ci sa àdduna sa xam-xam ci sa dégg-dégg charia dara dootu ko mën a oyofal ñu doog la duggal ci leneen ñi ñi jàpp ni léegi ay ndaw la ñuy jël di leen jox xam-xam yooyu xëy na loolu moo indi problème yi loolu gaawtu la bu sëriñ si am pour am ay taalibe wala euh, xëy na bëgg a defar ndaw ñooñu la. waa déet noonu la mës di demee. Mhm. waa nit yàlla yi bu ñu daan woote. dalee ci yonent yi ba tey. seen mbooloo moom ndaw ñeek jigéen ñoo leen di topp. waaw dañuy xeebu dañuy tumuranke lool. borom téere yi saabu bu xam-xam feeñee Serigne Touba mii tey bi mu wootee yoonu murit gii ay borom xam-xam ñoo ko doon weddi di ay borom ñoo ko doon weddi bi mu xëyee tas daaraam ji ne képp ku fi jàng indi woon. yeewi nañ la bis ni ki tey képp ku bëgg àggal ci yàlla laxasal ñu topp am na ñu laxasaay dem. parce que jàng moo leen taxoon a jóg mais gis nga ñooñu ay borom téere lañ. xam nga ñooñu ay borom kon gis nga xam-xam bi noonu la mus di mel xam-xam la boo xam ni saa boo ko waree woote. dafa am yenn xeetu lu bëri lu ko nëbb. ci xam-xam yi nit ñi xam aada yi Sénégal bari nag loo xam te ne aada la boole nañ ko ci diine gi te du diine. loo xam te ni dañ ko ci def nii par tradition rek mais fekk ne bokk ci yooyu yëpp foofu da nga koy muri. ngir mën a woote yàlla ngir mën teg xam-xamu yàlla ngir mën a samp yàlla. d' accord na kon fi may fi may daanelee rek comme c' la dernière question. Mhm. muy dañu am

tey jii mun nañ ne dañuy jaamu jigéen xëy na néegu sëyam fa la gën a mun a jaamoo yàlla pour am fa caabi àjjana mhm. te loolu mënul mat mu fii xamoo sa borom kon li may soññ sama moromu jigéen yi pour ñu mun a tey jii toog si néegu sëy sëy ba am ci seen de borom mhm. muy ñu xam yàlla d'abord bu ñu xamee yàlla ci la ñuy xam nag ki ñuy jëflanteel di seen borom kër boobu ne defuñu ndax jëmm nit mais dañuy def ngir am ngërmande yàlla. Mhm. te yàlla balaa ngaa mën a sàkku ngërmandeem nga xam li mu bëgg. Mhm. te balaa ngaa xam li mu bëgg xam mooy mooy kan. Mhm. kon foofu laay soññ nit ñi te tamit di leen bàyyi xel ne la. kuréel goo munti gis moo xam nit la métier la wala tarixa la. am na ci ñuy jubal am na ci sellal généraliser bi daal képp ko ci ku ci taxaw yaa ngi def erreur. d'accord léegi euh, sëñ ji bi daanaka sëñ bi mën nañu mujjee ci yow euh, Seydina euh, waaw waxtaan bi jeex na xëy na waaw looy mujjee rek. waaw moom day <coughs> liñ bëggoon wax waxuñu ko waaye sant yàlla. Mhm. am na lu luñ ci barkeloo. ñu yàlla may xel dinañ dégg. Mhm. waaye liñ bëgg a leeral rek tënk fa mooy. gis yàlla gi ñu wax Cheikh Moussa moo xëy taxaw wax ne damay wane yàlla jëxëran loolu Cheikh Moussa si moo ko wax. jëxëran ci bët jëxëran ci bët jëxëran jeexal na wax. waaw mais dama wax ma ci bët ci bët. da nga koy gis ci bët ci bët. loolu Cheikh Moussa Cissé moo ko wax muy benn mhm. ñaareel bi mooy tàqarle wuñ diggante ndey ak baay mhm. tàqarle ko mhm. ñaare bi itam buñ jël nit koo xam ne day fo di caaxaan nekk ca fonkul ndayam fonkul bàyyam ba ñëw jébbalu ci sëriñ bi ñu ñëw attaqué sëriñ bi ne ko yaa yàq suñu doom yàgg naa yàqu waaye daa ñëw ci sëriñ bi mënuñ ca dara ñu ñëw ci sëriñ pour sëriñ bi dimbali ci leen li ci des it mooy du da jàng ba fiq da ngay jàng fiq ba noppi door a dem jàngi tasawuf loolu am njumte bu sewe ngi ci te bu temps yaatu naa ko leeral ci ay bind leneen li naar yi ëpp ñu diina ba ñuy dem toppi leen kuy génn sa kër di dem feneen dafa fekk ne la ngay wut nekkul ci biir kër ga mhm. ñun dañ fi am ñu doy bu yàlla jàllee yonent bi jàll sëñ Tuubaa mu ngi fi te kenn melu ni moom mhm. te liñ jëlee ci moom jaar ci sàmm sàmm moom mhm. keneen ñu ko jox d'accord kon nag mu ngoog euh, sëñ Mansour xëy na pour euh, pour tëj rek waaw fi may daanelee mooy ni ko sëñ naa waxee sànq xëy na li ñu bëggoon leeral yëpp leeral leeraluñ ko waaye nag li neex yàlla rek moo am ah, kon ñu ngi sant yàlla bu baax li ma ci dolli mooy ñun ay taalibe Cheikh Moussa Cissé lañ. waa lu ñu munti tuddee rek yàlla yàlla yeeg wala leneen lu mu ci munti doon amul solo li am solo mooy lu ñu doon te li ñu doon mooy ay taalibe Cheikh Moussa Cissé lañ Cheikh Moussa Cissé di taalibe Serigne Touba boole ñu si loolu la ñu xam yàlla xam yàlla la ñu woote. sa moom lañ ko amee ci Cheikh Moussa àgg ci yàlla ak ñu ñu ko waxee ak gis yàlla ci euh, ni ko ni ko Cheikh saa woote dama doon wax sànq ne Sénégal dañu am chance bu ñu war a exploité ci bu ñu ko yëgee bu ñu ko yëgul Cheikh Moussa dafa taxaw wax ne mbaal ba Serigne Touba yoroon di ruuxu jaam yi eh, di mbaal eh, mbaal ba Serigne Touba yoroon di mbaal ruuxu jaam yi di leen dugg àjjana teg na ko sama loxo bi mu ko waxee ba tey gis ñu lu ko weddi gis ñu lu ko lu daaneel kàddu googu te saa bu ñu xëyee mu gën a leer saa bu ñu xëyee mu gën a fës. Mhm. kon ñun ñu ngi koy sant bu baax li mu ñu defal de xam nañ ko. Mhm. te yéene nañ ko àddina bi li xëy na nag bëggoon wax ci débat bi mooy suñu sañoon te ñu ngi la koy ñaan di ko sàkku ci yow Babacar xëy na ci yeneen jour wala ci yeneen horizon mooy euh, a mhm. a ñàkk. baax baax a baax di tuub mhm. a baax nag waa daane foofu. les piliers de l'islam ah ci na ak ñom sen farata ngeen ko jappé wala da ngeen ko jappé juste un complément mais mais Babacar ñun avant ñu nek talibé Cheikh Moussa mhm. ay jullit lañ mhm. té jullit dafa am lo xamné nekul yow ya naan li sama farata la li sama sunna la mhm. yónni alayhi salaam mom la suñu borom yoni muy ki nga xam na né kullu ummati yadxuluna ila man aba nee na sama xeet wi yëpp danañ tàbbi àjjana ba mu des ko bañ ñu ne ko kan mooy ko bañ mu wa man atta a daxal janna am asani fa aba ku ma topp tabbi àjjana ku moom mooy yaay ki bañ. donc moom mooy ki bañ léegi foofu leer na. léegi beneen bi mooy une dernière question. Mhm. mooy ba tey ndax si pacte d'allégeance bi nga xamante ni Cheikh Moussa. Mhm. amoon na ko ci Serigne Touba. Mhm. ngeen continuer ba tey ndax yéen a ngi dem xel kom yéen ngi dem xel kom ba tey ki wax la tóori mbir na yi gën a jege yëf ba tey tamit jokk bi ngeen jokk woon ci tarixa murid yéen ci jokk ba tey maanaam maanaam xalifa bu am da ngeen di dem yeesal seen njébbal foofu ba bisu yàlla tey bii biñ mujjee yóbbu tool Mbàkke Kajoor la Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg téwér ay murid lañu ay taalibe Cheikh Moussa gis nga baat bu yàlla yàlla ginnaaw Cheikh Moussa la sos <laughs> moom mësu ko dégg ci noppam Cheikh Moussa Cissé bi muy dund murid la buy dund li sëñ Tuubaa woote te xam ko te di ci tàbbal ay jaam. parce que même bu doon bu doon ci waajuram rek parce que seexum sëriñ Tuubaa la moo ko defar boole ko léegi tënkal ma waxtaan bi jeex li ñuy tëjee mooy soññ soññ surtout suñu ay mbokk taalibe parce que jotaay bi boo seetloo yi ci yi ci ruq yëpp mhm. ak ci xaw a doy waar yëpp ci ñiy woote woon ay taalibe Cheikh Moussa ñu leen di wax yàlla yàlla daanaka coow li yëpp ci ñoom lay jëlee ci yenn melokaan yeeg yenn bagage yi ñuy feeñal ak te lenn dëpp wu ak li Cheikh Moussa woote woon nañ fexe fagaru te defaru te xam ne Cheikh Moussa waxoon na ne daraam du yàqu kon nañ fexee nekk daraam rek gannaaw daraam nag kon daraam du yàq ku nekk ci yàq wax loo warta wax def loo warta parce que xam-xam bi mu joxee jant la mhm. xam-xamu jant ku nekk sa dënn nga di ko dund sa kàddu jant la war a doon sa jëf jant la war a doon sa melokaan jant la war sa lépp dafa war a dëppoog li suñ borom gërëm ci biir ci biti foofu laay soññ sama bopp mhm. ak bépp mbokk taalibe te it ñi ciy wax lu ñaaw te xamuñ ca dara mhm. ñu maanu ca lu ca am solo la kon ñu ngi lay sant bu baax ci dara gi di wax suñ borom yàlla na def dégg ci ci nit ñi ah d'accord donc euh, chers téléspectateurs je pense que lii leer na chers l'intérêt du débat, c'était quoi C'était d'inviter des jeunes qui appartiennent à ce mouvement-là, Ce déglu vous lii nag yéen nga ils sont en déglu yéenay am settantal ci li dégg wala mais en tout cas ce xam tout ce que mës mu jëm ci ci biir ngëm ba ca biir topp ba am na ñu doxal na mu waree am na ñi nga xamante ne itam doxal nañ naka sa dul noonu ba àpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañ ni chia euh, euh, sunnisme euh, ak ak li nga xamante ni moom mooy sunna xëy na loolu lu bari mu ngi am après yonent bi sallallahu alayhi wasallam te la ko yóbbee jaam yi mooy dégg-dégg bañ doon am ci xëy na yenn textes yi wala yenn wax yi nga xamante xëy na yoon saa sallam moo ko kii woon wala beneen tamit mooy par rapport ak seen i position yi nga xamante amoon nañ ko après amatuñ ko mais benn tamit boo contextualiser le débat mu jëm ci wàllum li nga xamante ne xëy na mu ngi am tey ñenn ñi li ñuy wax ci wàllum yàlla yàlla teguñu ko ci diine teguñu ko ci leneen lu dul ci seen xel te xel gannaaw ba ko borom bi joxe jaamam rek ca la ko sonal donc amul lenn lenn lenn lu ñu mën a layee lu dul xel te xel mi sax mën na bañ a sell mais ñu jàpp ni xëy na li nga xamante ne xëy na judd na ci waxtaan bi mu nekkoon xel mu en tout cas mbir maa ngi noonu euh, mbirum yàlla euh, merci beaucoup à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné pour cette émission merci beaucoup à papa hein, donc d'être venu pour cette émission merci beaucoup à Moustapha notre technicien de son son bi Adama notre maquilleuse merci beaucoup à Adama Kanami, merci beaucoup à Pape Samba donc venu pour la première fois pour l'émission Parlons Jeunes donc merci beaucoup merci beaucoup à Kébé d'avoir filmé et aussi réalisé cette émission merci beaucoup à mon ami Toun de, ce mouvement <laughs> donc de m'avoir aussi aidé à réaliser cette émission-là. Donc merci beaucoup à Momodou Diouf, étudiant à Yarach, donc merci beaucoup d'être venu pour assister à l'enregistrement de l'émission Parlons Jeunes. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à ma cousine Salimata, donc depuis Kermassar avec euh, Domam, donc euh, à son papa Pafal Astou. Donc merci beaucoup à toute la famille. Merci beaucoup à Cheikh Dong de Merveille Couture, donc de m'avoir habillé pour la deuxième fois de Fatelini Mungi Sandaga donc deuxième étage ku bëgg yu rafet rek wala yu euh, merci beaucoup à vous chers téléspectateurs de nouveau merci beaucoup d'avoir suivi cette émission là on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes